waa aja ndox gale ndox gale yaay ndox gale yaay ndox gale yaay bu guddee fooy fanaane nan nañoo ñàkkub sinapeur rek illaa illaa illallah ay kocob lu la dugal ci combat bi jëf-jël nga xam ni daa jëfa-jëfa jëf ba amatul ku mu jëflanteel mu dem ca Europe di wut ku mu jëflanteel ah xaw ma looy def moom de jëf de moom dana ko def te bu jëfee nag damay bañ mu jëflanteeg faar billaay wallaay ah suñ sinapeur bii nga xam ne lu ne la ñuy génneel ñu koy booleeg jëf-jël moo géet yaa néeg yaa soxar yaa iñaan yaa iña ñeeñ kii da doon foo da doon kaf wax dëgg yàlla da doon kaf wax na ma ko sax ne ma wool gars yi nga wax Sénégal ni da doon dama doon kaf kii dama doon kaf rek mu dëggal jox ma avance mënuma ma koo delloo avance bi ah waaye moo gën nag vraiment